صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر waaye doomu aadama la ñu waaw dañu am bëgg cabrion yu bari indi ko defal ko sëriñ bi loolu nag yokkute la ci moom ndax sëñ bi loo ko defal danga ko gis ah loolu nag mooy dox ba léegi moo tax sëñ Saliou mii nga xam ne rakkama sas ci moom rek ah ñëw boobaak léegi ànd ci liggéey bi waaye tey jii rek mu sàkku ñaan si waaw ah, waaw moom moom Baye Fall la moom <laughs> waaw waaw mu sàkku ñaan rek te ñaan mooy lépp ah, waaw lépp lu waaye ñaan moom booy ba nga jaar buntu bi mooy Cheikh Rafa. asalaamaaleykum mbokk yi tey nag noo ngi fii ci ndindik sëñ Fallou ndindi nag ku fi ñëw sa xel dem ci Cheikh Mouhamadul faadal waaye ñu siyaar si soxna May mu sëriñ Fallou diggante soxna May ak sëñ Fallou nag ñëpp ko xam day baayam di xaritam na am mu am sëñ Fallou la waaye taalibu sëriñ Touba boo xam ne ñëpp xam taxawaayam moo doon sakku sa ñaan kooku nag yàggat taxaw lu mu am rek jox na ko sëñ tubaa kooku nag lim def ci barabu sëñ Fallou doy na muy Abdoulaye Sylla moom docteur Sylla lu jiitu loolu bàyyam lu mu war a taxawoo Touba ak lu mu war a def Touba def na ko moom docteur Sylla mu ñëw nag di ndaw waaye lu am defal na ko sëñ Touba ku xam diggam ak njaboot sëñ Touba gi jëf na ko kon nag bu nu ñëwee tey jii ñu ànd ak saañ saaliw mii nga xamante ni mooy rakam ji sës ci moom rek di Baye Fall di sa tool yi ba ñëpp muy sëñ saaliw moom la bàyyam tudde sëriñ muy ab Baye Fall waaye di nit ku yiw di nit ku baax jaxasoo kilifa yi dëkk bi yëpp rawatina sëñ Abdou Karim Mbàkke sëñ Fallilu ndax da ko bëgg ci xolam ñu ñëw siyaare nag soxna May mu baax mii ñu ah, ñu fekk fi sa ànd ak sëñ Mbàkke mii nga xam ne doomam la te sëñ Mbàkke wax naa ko moom itam muy kenn ci Ablaye Sylla diggam ak Ablaye Sylla ñëpp xam ko muy nit ku baax tey jii nag li ñu tax a jóg mooy ñu dikk siyaare ko tàllal koy loxo ndax ci mbale mi leen jóge te Ablaye Sylla ñëpp xam ne otoom bu am day tëj lépp ñëw andi otoom yëpp ci mbale mi ñu bale Touba mu ñëw nag di sàkku si ñaan ci soxna May ndax it 2024 bii nu jëm am na lu Ablaye bëgg ci réew mi te ku ku te yelloo na ko lool mu di ko di sàkku ñaan ak jàppale moo tax ñu ànd ak sëñ Saaliw ànd ak sëñ Jiili mi ñu àndal ak délégation bi ñu àndal dikk ziyaare si soxna May Galas waaye fii ñu ko fekk nag ndindi ko fi ñëw looy sàkku na sa xel dal ndax fii kat ku fi ñëw ni ko taarale foo dem. dañoo ko fekk ci kër këram gu bees gi mu sanc nga xam ne seen boo ñëween mi ngi taaru kër Baye Fall yi moom laa laa ko tudde rek ñu ñëw ne di sàkku ñaan di ñaan mu yàgg fi tawir ndax ku ñëw fii daal xam ni sëñ Tuubaa lim sama lépp da yokk ku ñëw nit ñi rek xam ni lépp yokk na soxna ma yàlla na nga fi yàgg ci biir. soxna si ñu ngi jégalu bu baax ci kàddu yi murit la taalibe sëñ Tuubaa boo xam ne ay jëfam ci yoon wi ñëpp dañ ci teg seen bët euh, mu mel ni ki nag ñi nga xamante ne doonuñu woon sax ay murit luñ mosaan a bëgg ci Sénégal fii lañ ko daan sàkkoo si rawatina koo xam ne nag fii mooy ab juddoom euh, fii lañ ko xame ay waajuram fii lañ leen xamee te lépp lu mu amit fii la ko delloowaat rawatina nag seen waajur bu baax yi ngeen xam ne yéen amu leen sago ci moom mu jël ko def ko noo xam ne waxuma sax euh, ñi mu jur waaye képp ku xam sëñ Fallou rek bëgg nga ci ci ni mu def bare barabam bee kon nag bu ñu demee ba Sénégal toll fii mu toll sàkku euh, defar senegal loolu lay sàkku mhm. sàkku doon rek app euh, njiitu réew mhm. waaye defar senegal lay sàkku euh, jaaree ko ci euh, kër sëñ Touba. Mhm. te kenn umpalewut loolu feneen foo dugg nangu nañ ko xam nañ ni defaruk Sénégal ci loxo sëñ Touba rek la mën a jóge waaw loolu moo tax ba mu bëgg li ñëpp bëgg rek doon ñëw nag tàllal ay loxoom comme noonu ni mu ko defee ci kër yi kër yi kër yi diine yëpp ci Sénégal tàllal ay loxoom ñu ñaanal ko Euh, li mu bëgg nag ci loolu yëpp du dara lu dul defar réew mi rek loolu daal moo doonoon kàddu yi. Euh, ñu bëgg nga ñaanal ku baax moom nag dafa am ñaari cër ci yow. day sab taalibe ba pare ëlbatiku di sa doom. Mhm. ndax sa kóllëreem diggante waajuram bu góor ak ak yow seen kóllëre. Mhm. loolu daal Mbàkke moo waraloon tànk yi. Saliou mi mu jiital ci ay ay tànkam nag. Mhm. Euh, moom dafa jël mbokkoo gi ak ak ak lépp daal di koy teg ne. daal di def ab Baay Faalam def ab taalibeem nekk homme de confiance am waaye nag euh, mate ko sëkk nag ku mu jaxasoo rek da nga xam ne nit ku am maanaa la mm-hmm. nit ku am solo la ci yar ak teggin ak ci taalibe euh, loolu moo taxoon ñu ñëw fi tey ànd ak euh, sëñ Jili mi nga xam ne mm-hmm. moom it kóllëreem ak sëñ Ablaye lu yàgg la te du dara waralu ko lu lu baax lu mu xam ah, rek ñu ñu ànd di ko dox mm-hmm. fii ci yoon wi Euh, ak Cheikh Mbacke gaa yi fi ñëw yëpp ñoom daal ñaan lañ doon sàkku si mhm. fii nag barab bu yaakaaru la ndax pakk la boo xam ne xëy na yaatuwut lool waaye nag bu am doole ci suñ boroom la mhm. ndax euh, ki ko sanc di sëñ Fallou lu lu baax lu mët a def rek def na ko fii ah, moo tax nag bi ñu la fekkee suñu xel dal na lool mhm. di sàkku nga ñaanal ko bu baax Mbacke jërë ngeen jëf waaw. soxna si dafa wax ne Ablaye ah li mu defal sëñ Fallou yeesalaat barabam bii nga xamante ne defal na ko ba taaru. ku nekk rek amel nga ko loo xamante ni mbégte ak kontaante rawatina moom mii nga xam ne léppam day sëñ Fallou te mooy sëñ Fallou waaw loolu lay seereel ñëpp daal ci Ablaye Sylla <laughs> oh. Mhm. ca. moo ko indi ba sama kër ci bunt bi mhm. ne ko soo demee da nga ko fekk mu toog ca barab ba mhm. sama portale ba soo demee di ko fekk mu toog fa moom man rek lay wattu te man it moom rek laay wattu <laughs> oh. dama ko ñeewanti nag dañuy mhm. dëkkee moom tey sëñ Fallou fee nag barab bi lu fa waay bëgg rek soo soo soo ko mébétee rek ma defal la ko waaye soxna may laa dëkkal léegi amiloo ngi nii dama nga woo ko ndokk